tout le nee na nag ngay jàng ayatul kursi su boobaa doo wax bismillahi rahmani rahim da ngay ñëw rek daan ni allahu la ilaha illa hu ba mu jeex ayatul kursi yi boobu nag sallallahu def ci wax benn xadis bu wér ne xadis bi jël naa ko jox ko sama xeet wi pour ñu koy barkeeloo duñ ko jàng mukk lu dul balaa ñuy génn at dinañ am fukk yi ci ci seen dund mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaraa ayatul kursi képp ku jàng ayatal kursi yi ashara fukki yoon dubura kulli salaatil asri gannaaw julli tàkkusaan gu nekk qabla an yaquuma min maqaamihi balaa muy jóg di taxaw ci place bi mu doon jullee ataahu llahu ashrata ashyain yàlla dina ko jox fukki mbir kon ndeke kado bi mooy lan ñun julli di fi nekk te bëgg koo jëriñoo ñu déglu bu baax xadis bi yonent bee ko sallallahu alayhi te du waxantu nee na képp ku jàng ayatal kursi yi gannaaw julli tàkkusaan gu nekk fukki yoon rek nga koy jàng ayatal kursi fukki yoon rek nga tàmm ko di ko def nee na yàlla dina la jox fukki yëf fukki yëf yi bi ci njëkk mooy lan nee na awwaluha tawbatan qabla al mawti booy jàng ayatal kursi yi fukki yoon gannaaw tàkkusaan gu nekk balaa ngay génn àdduna yàlla dina la baal sa bàkkaar yi nga tuub yépp balaa ngay génn àdduna jar ko wala jaru ko hmm, tay ben na ngi non ñaarel ba moy barakatu fi rizqi so de jang ayatul kursi gannaaw takusan bu nek jaru sax nga nan diw ñaanal ma diw ñaanal ma diw ñaanal ma yalla dina beur wërseuk sa wërseuk yalla dina ko yaatal yalla day barkel sa wërseuk barkel sa lepp sa liggey la bu done même bu done tiaf ngay jaay sax yalla dina fexé ba gerté tiaf gogou yalla barkel ko ba nga man ci tabakh sa lepp li nga bëgg ndax liggéey bu rek dem jar na ko wala jaru ko ñetteel bi moy salamatun fil badani so dé tam di jang ayatul kursi gannaaw takusan bu nek li gaay di jambat ci yaram wuy metti sama ndigg sama loss wék sama gannaaw geeg sama tank yeeg nan yoyu day metti jambat yoyu ngay jambat so dé jang alquran yalla dina def ba doto ko jambat ndax alquran mo démé non moy ñettel ñeenteel bi mooy mahabbatan fi qulubil na soo dee jàng alquran ayatul kursi yi gannaaw tàkkusaan bu nekk yàlla ne na dinaa def cofeel ci julli di ñépp lay bëgg ba c'est pas kon alquran li sëriñ Tuubaa waxoon bi day bijj ci sa diggante jaam yi ci sa digganteeg yàlla sa digganteeg yonent bi digganteeg sa bopp kon ndekete ayatul kursi bi mooy saafara la ci bi ko juróomeel mooy yaqinan bila shakkin dana danañu la wan sa grade ciel ba nga wara dekk ci lu woor bala te du am ben sik sak bala ngay genn aduna kep kuy takko di jang ayatul kursi yi yon gannaaw julli sam gu nek yalla dina la won sa keur ga bala ngay genn aduna nga xamni fi moy sa grat ciel bi ngay dekk biko jurom moy khurujuhu min ad-dunya bi kalimati shahadatay bo tamme di jang ayatul kursi yu yon gannaaw julli sam gu nek yàlla neena boy génn aduna ñépp dinañ la deg nga ne la ilaha illa allah muhammadun rasulullah te kep ku mujj batam ci aduna mu wax la ilaha illa allah muhammadun rasulullah dinañ sédene yow gëm nga yàlla yow aljana moy sa place insha allah benen biko juróom ñaareel mooy ala siratikal barqil khatifi soy jàng kursi fukki yon moy 10 fois gannaaw julli takusan bu nek su nit ñi di rang pour jéggi sirat yow do rang da ngay ñëw rek mel xéfer kër bi nga dugg jéggi sirat dem di xaar àtte ba ndax jaruko ko taxawalu sirat to sirat deg nga niñ ci wax nu mu mel biko jurom ñettel moy yu'ti kitabahu bi yamini kep kuy jang ayatul kursi fukki yon bu nek gannaaw takusan bo génné aduna bo dem ci sa bir bàmmeel malaaka kay dinañ la fa fekk jël sa téré jox lako ci sa main droite te képp kuñ jox sa téré ci sa main droite yow boy bo nga xamni kenn dula hisab aljana rek mom nga moy sa cieur benen bi bala mam borom tuba wax ci hadith bi sukkandiku yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bala ngay xamni jang ayatul kursi fukki yon gannaaw takusan gu nek am na nga dugg ci sa bir neena luñ lay defal yuwassa allah qabru dañuy yaatal sa bammel xam nga say nga dégg ñu naan yalla ne yalla yaatal bammelam yalla ne yalla oyofal suusi si yalla ne yalla yokku kiyam xam nga say nga dégg ko waye bo bëggee yow nga ñaanal sa bop lool del takko jang ayatal kursi yu fukk yon ci gannaaw julli takusan gu nek digënte takusan ak timis soko defé neena sa bammel day yaatu ba mu ne melni da nga nek ci pale tersirat. taxawagul misaan ya taxawagul xisaab ya taxawagul malaayika yi taxawagul bi ko juróom-ñeenteel mooy boobu bi ko fukkeel mooy yenn yadxulul jannata bilaa xisaabin wala iqaabin képp kuy jàng ayatal kursi yi fukki yoon yu ne gannaaw tàkkusaan gu ne yàlla ne di nga dugg àjjana kenn du la xisaab kenn du la mbugal kenn du la réglé soo ñëwee carte blanche la ñu la doxal fu la neex jaaral ci bunt kon lolu muy fukk yi nga xamni ni ku takko di jang ayatul kursi fukk yoon gannaaw julli tàkkusaan bu nek li la la yalla di defal li kado la wala du kado mm-hmm. kado bi nak kado bu reey la kay dañ ko jox suñu soppe suñu xarit mu lafal ko ci kado yi fi jot ñew su ko defé ñun ñep ñu diko jëfëndiko ndax alquran la ta ayatul kursi ñep mokal nañ ko su ko defé fukk yoon yi bariwul waaw fukk yoon yi ndaysan ben suñu ben mbokk bu dafa ñëwoon benn conférence dégg mo wax loolu mu jël ko néna bob ba légui mom la takko di jang mu mun ma cheikh man dama mujj sax xawrus ndax fi ma ne di fa liggéey am ñu ma fa ëpp diplôme nekk fa waye ni la leen di rombé ni chaque jour affaire yi bané ko waaw loolu waxu yonent la sallallahu alayhi wasallam néna ayatul kursi ku koy fukki yoon gannaaw tàkkusaan bu nekk fukki yi dinañ la ko jox mm. balaa ngay mm. allah balaa ngay génn قال له انك عليك لو بعلن ايه الكرسي فك